am ñoo xam ne bëgg ngaa laal ak ñoom. su ma la waxee dëgg rek man Modou Lo mi yor roi des bi moo nekk sama kanam. avant egg si Modou am na ñoo xam ne ñu ngi si suuf. am na lu tax ma wax la loolu li mu yor laa soxla képp koo xamante ne da nga nekk si yoon bi pour dem jëli li mu yor maa ngi sa kaw man kenn laa bàyyi si làmb mooy ka ma bokkal écurie ñi nga xamante ne li ñu boole taxalewuñu ñooñu laa bàyyi si làmb. ñi nga bu ma ne écurie nag yemul ci ngor parce que ñun ngor wakaam yoof duñ bëri suñu biir mais ku weesu ñooñu noonu bu fekkente ne li ma soxla yaa ko yor jàppal ne maa ngi sa kaw ma la ñëpp. waaye nag nii am na si say mu naataangoo yoo xam ne tay ñu ngi ci làmb ji seen say rêve pour bëreeg ñoom la ñoom seen rêve pour bëreeg yow la am na ñoo xam ne tey ji làmb boole na leen xam nga leen. non ñi ma làmb booleel bari na xam nga tey ku def douze combats huit victoire samay morom ñi ma si gën a riche palmarès dañ leen di compter bu dee ne am na te wax dëgg ne yàlla am na ay mbër yoo xamante ne ñu ma leen doon proposé. comme ñan ba nii ñu dem jël comme ñan ñoom. exemple tey Petit Niang combat am taxaw na ma booy Dakar suma combat moom ñu ngi ko doon dox. Petit si moom la yaaxoo mais peut-être da ngay gis lii la lay arrangé la nga dem jël loolu loolu sa choix la mais. du ma le du ma du ma ne maanaam dama ko raw wala daf ma raw mais bu ñu tegee suñuy palmarès teg suñuy parcours dañuy xam ndax làmb boole nañu wala boolewuñu ñu ngi comprendre. Petit Niang. Bulldozer kombaam taxaw na moo gin bu yoof maa ngi ñaanal gin bu yoof yaa nax yàlla may ndam gin bu yoof suma grand frère la sama lépp la mais suma kombaam moom aussi dox nañ ko. si kum yàqoo si moom man kombaam du yàqoo si man. parce que man bëri laa opté maçon bi tey bu amee chantier bu chantier ba jeexee day ñaan yàlla am beneen chantier parce que loolu moo koy jëriñ man làmb laa opté su ma amee combat bu jeexee dimanche dimanche ba sa topp suñu ma contacter ku ma làmb booleel fay ma damay dem bëri ji parce que bëri laa opté su ma ko deful dem defi leneen rek du ma fi nekk di xaar parce que temps bi du ma xaar doole ji du ma xaar ku ma làmb ñu boole ma ak moom damay parce que bu ma la limalee ñi ma la limal ne bëri naa ak ñoom. tey jii ñooñu ñëpp am nañu adversaire am nañ combat sa ba léegi yow am na ñoo xam ne tey jii amaguñ komba sa yàq ñoom jaadu na. waaw loolu xam nga mu ngi dépendre si promoteur xam nga moo tax na mu ngi dépendre si promoteur parce que tey làmb da ngay bëgg mbër mbër ba bëgg la te promoteur du bëgg combat boobu. fii làmb yooyu wax mu jaadu xeer promoteur yi dofuñu xam nañ lu neex ak lu naqari tey jii xeeru ngoon am na ñoo xam ne tey ji bu ko bu tuddoon ñooñu dañ naan ay jaadu na. non dafa am com combat yoo xam ñu ngi koy ñu ngi koy dox suma combat yoo xam te ñu ngi koy dox fi ñu toll nii. kan. exemple sama komba ak Thiéli. ñu ngi ñu ngi koy dox ba sori woon na accord lañ doon xaar xam nga kon mënoo fi jógewaat di laaj keneen suma combat ak caatu yara ñu ngi ko doon dox mais caatu yara day xaar. caatu yarax day xaar. parce que daa war a xaar. da nga day xaar. dañ teg suñuy palmarès ñu xool ñi mu daan xool ñi ma daan. a da Caatu Yaraax huit combats la xama set sept six victoire. ñaar defet benn defet. yow nga am ñaar defet. Caatu Yaraax daanul benn mbër boom bu mu mën a lim ñu ne diw mii nii mu ngi nekk si yoon di dem jamono bi. ndaanan ngay ndaanan xam nga li wax ci fi ñu toll nii yow daal wax ji lan jël ko. non du ma bëreeg moom. parce que dafa am lu mu wax. te li mu wax dafa am lu mu wax. waaw li mu wax noonu dama bëgg a fekk si si loolu man Caatu Yaraax tolluwuma fu ma koy laajee pour mu bëreeg man. deful ci làmb lu ma deful ëpp ma tur su ma bëreek moom su ma ko mayul mayu ma c'est à comprendre kon kooku waruñoo mën a wax seen combat mu naan ay kooku noonu maa ko raw si teg ko fan caatu yaraax su ma waxul maa ko raw moom warul maa wax maa ko raw parce que li ma def ci làmb defu ko ñi ma bëreel bëreewut ak ñoom mënut a bëreek ñoom sax ñi ma la limal fii nii caatu yaraax mun cee bëree kenn. mun cee bëree kenn. kan moo kan la ci mën a bëreel la moo tax bëreewut ak ñoom ba léegi. est-ce que adversaire yi nangu nañu bëreeg moom. non non du question de bañ a bëreeg moom xama làmb la la dañ lay seeti pour kii nga nangu parce que kii da ngay leer ne yaa ko man ñu seeti la pour kële nga bañ xama la moo tax parce que da ngay jàpp ne moo la man te làmb du loolu man la laa gëmul di jóge sa kër di dem stade ñëpp xam ne da ngay am ndam man gëwuma loolu man làmb la laa gëm booy génn di dem ñëpp naan ah tey dina metti dina daanam du daan parce que loolu mooy loolu mooy tax bés bi am am am am comme ni ko booy defee léegi dem ko jël koo xamante ne ñëpp leer na ne boo ko poussé mu daanu mais ça loolu du làmb. loolu amatul nag de léegi boo yëpp yëpp yëg si dini xeer. non du question de yëg si dini mais gars dañuy dem jël koo xamante ne leer na leen leer yàlla ne kii ñoom ñoo ko mën du fi jeex ñoo xamante ne fi ñu yëg si tey si làmb dañ leen teggil ay yoon ba ñu yëg si fa. bari na bugguma seen tur ñu bari dañoo dox seen komba ak ñoom ba sonn ñu koy teggi ba tey mais du ma si tàllal kenn loxo ne ko kaay bëreeg man parce que defuñu fi lu ma deful. kon Petit Niang daa teegi da laa teegi dem jëli boo Dakar mais dañoo teegi daa teegi bi loger daa teegi parce que lu fi def lu ma deful Petit Niang da laa teegi dam jëli boo Dakar bi loger da laa teegi dem jëli sa mag waaw mais fa mu moom fa mu jël moo gën a metti Petit Niang ko delloo avance booy Dakar waaw day xaar de bu ko delloo day xaar de man xamal man xamal laa gëm dañuy bëre dox nañ suñu combat taxaw danga nga bëgg a bëre bëre nga opte dox nañ sa combat kii jaaru na jël ko nga bëre moom bul xool lu gën a nooy wala ngay xooli feneen fu yomb bu foofu baaxul nga bëgg a retourner fii du deuxième porte de fii première porte la ti entre outil les. buñ bu wàññeeku waatoon tey jii pour jël la pare nga pour bëre moom. noo pare wu ma de pour bëre moom day xaar de. <laughs> da ngay day xaar. waaw parce que day xaar man ne ma fi pour moom bu demee ba amul solution muy ñëwaat. diggante boo defar. Boy Dakar ndaanaan la champion la. 10 combats 10 victoires. naam 100 combats 100 victoire ñi mu daan du ñu xeeru ngor xeeru ngor du ñooñu. ñi mu daan du ñu yow yow tam ñi nga daan duñ moom. moo tax ma ne la ñi mu daan duñ man te góor balaa nga koy xam foog nga mos ko. pourtant yéen ñaar lamb ju jaadu la nag de. waa ci moom lay des. billahi wallahi tallahi moom laa gën a xiif sax kañ ñi nga ma fi limal ñëpp. xamala moo tax. Ah. parce que il est invaincu. dama ko bëgg a jàngal lan mooy defet billaay su ma jëlee ma jàngal ko loolu. esprit gagnant lay doxe ñun boobu la ñuy doxee mais boobu dafa am fu yem esprit gagnant saa saa nga perte de c'est pas dangay am esprit gagnant da ngay gagner chaque jour de da ngay perte. kon su ma déggee sax bëgg a cotiser. non sévèrement xam nga cotiser nit ki nii si big vert méttiwul mais big rouge dangay tere foti yi. nilaari xam nañ big rouge nilaari. su maas gi nga xam ne ay nilaar lañu ñoo xam nañ big rouge big rouge laa yor man su lay corriger big rouge laa lay corriger pour beneen yoon doo ko defaat erreur boobu su ma dégg kon da ngaa fas ne corriger ko si big rouge non moom ak keneen a keneen mais li tax moom mi ngi lay dégg chaque jour mi ngi SBT moo tax ma non man li ma koy wax mooy su dee ne li muy wa woote dëgg la ndaanaan la champion la ñëpp xam nañ ko na avance bi bu si jugee dinañ dañ ko wax ne maanaam ni nga doon doxee baaxul changer méthode. boo Dakar nga dégg xeeru ngor li mu wax tey si émission seeti mbër nee na yàqu moom jaadu na kon promoteurs yi ñu ngi lay dégg xeeru xeeru tey ñu ñëw nag si làmb làmb at fi mu toll nii làmb at jafe-jafe yi si xaw a nekk nii at feebar bi si dugg si nii tey ji boo amoon message booy laase si promoteurs yi at seen surtout CNG tey jii lan lay doon. waaw message bu may lancé dama naan gaay yi nañ gën a xamaat suñu bopp rek gën a xamaat suñu bopp bi mooy lan làmb moo problème ñoo ànd moo coow ñoo ànd parce que làmb chaque année ñu ne day sooxe te terewul gars yi dañuy bëre lu mu sooxe sooxe am na promoteur am te ñu ngi jënd seen ñu ngi jël seen xaalis di ko fay mbëri pour ñu bëre saa saa sax promoteur tëgg combat du ci génn mais lii lii motiver promoteur mbër moo koy def li tax ma wax loolu nag mooy. dafa bëri mbër yoo xam te ne leen di tëgg saa fay leen six cent mille mënu ñoo jënd ñaari bolok saa yi ñooñu tamit xam nga jàppale ñu promoteur quoi parce que jamono bi ñu toll nii gisuñu benn sponsor bu fi ñëw di appuyer promoteur promoteur yi fi am leen di compter kon bu la promoteur tëggee jox xaalis ngalawaay yow côté bi nga war a matale matale ko man mosuma am combat adversaire pour ma mbooloo estat mosuta am man saa yu may dem estate damay drainer mbooloo moo tax buggumaa sax bëree ko amul mbooloo faf man mbër mu amul mbooloo du jël sa avance parce que loolu maanaam dafa am lu muy def si làmb làmb dafa am lu mu soxla jamono bi mooy lan ñëpp promoteur ak mbër ak manager ak ñëpp ñu jéem ko pousser vers l'avant pousser ko vers l'avant nag mooy ku si nekk am na rôle boo war a def promoteur bi rôle am mooy tëgg manager bi rôle am mooy monter ay combat mbër mi rôle am mooy mobiliser buñ ko tëggee buñ ko waxee buñ ko waxul loolu mooy rôle mbër mais bu ñu la tëggee tamit xam nga mobiliser woo ñaata promoteur ñoo dugg génnaat. bari na trop. li tax ñu dugg génnaat dañ ko war a xoolaat mooy que ne dañuy jël seen xaalis def ko par di perte kuy ku nekk gañe nga bëgg mais kenn jaayul pour perte tamit mbëri nañ gën a bàyyi xel ci loolu ñoo xam ne tamit xam nga làmb ñun ñoo ko mën a doxal ñun mbëri kenn du jugee fële ñu du ñu ko doxal mooy loolu. njabootu làmb semaine bi ñu génn am tiis bu ñu dal mooy ñaari xale. di ñaari yaakaar dëkk Pikine kenn ki ñu koy wax Boylo kenn ki ñu koy wax Zilbalde Junior ñu gis suñu borom jël leen ñu bokkoon su ñun tey jii ngay lancé ban message sa moromu mbër yi. waa di leen ñaanal yàlla rek di wax ne foofu la waroon tàmbalee sax di leen ñaanal yàlla yàlla yërëm leen xaar leen àjjana parce que bu ñu dégloo seeni témoin rek si nit ñi rek dañuy xam ne ay nit ñu normal lañu woon nit ñu baax lañu woon te baax rek moo am solo. parce que fii ku fi baaxul rek def leneen te ñëpp mbaax lañ leen séeréel Jules Baldé Junior ku ne gis na biñ koy denc ni mu mel am na kilifa yu fi laaxu amuñu loolu donc mbaax mooy maye loolu daleen di ñaanal yàlla rek fi ñu jëm gën leen fi ñu juge di wax waa làmb nañ gën a defarwaat ñun mbëri ñu gën a bàyyi xel suñu bopp gën a bàyyi xel si àdduna te xam ne lu ñu fi mëntaka am ak lu mu neex neex ak lu mu bari bari bés day ñëw tolof tolof ñëw wala bés day ñëw dem am dañ koy bàyyi xel yàlla yéex mais ku si nekk da nga war a bàyyi xel sa bés muy bés bu metti muy bés bu neex parce que ñaari bés yooyu ñoo fi nekk bu mu neex rek nga yaakaar ne day neex continuer am na ñoo xamante ne tey am nañ ay tolof ba génn ci mais da leen jàngal ci àdduna loo xamante ne suba dina am nu ñuy doxee am na ñoo xamante ne nag dalagu leen yàlla na bu leen dal mais na ku nekk delloo sa xel si àdduna te xam ne ñun ay nit lañ. nga am doole nit nga nga ñàkk am doole nit nga te nit nit rek la mën a doon mënul weesu cadre nit nañ bàyyiwaat xel si àdduna bàyyiwaat xel ci suñ suñu avenir suñu avenir mooy lan suba dañuy nekk ji ay mag suba dañu bëgg a nekk ay kilifa di wax ñu ñu déglu suba bëgg nañ màgget xam nga suñu famille calmement duñ sonn nañ ko bàyyi xel léegi buñ gis succès bi rek jàpp ne succès bi day continuer wala gis na yaa ngi am alal rek wala yaa ngi am dara rek day continuer fii loo fi am day xëy ne may mu neex la ah mu naqari la kon nañ bàyyi xel jeexital ba bu jeex c'est très important. Mhm. dégg message bi xeeru ngor lancé yéen mbër yi ndax buñ ne mbër yi nag xàmmewuñ mbër mu ndaw ak mbër mu mag yéen ñëpp lañ wax ngeen message bi xeeru ngor lancé ñuy jaalewaale waa kër Abibulaay bu baax a baax at waa kër booy loo tamit at di jaalewaale tamit suñu papa Gasson waajuram bi génn àdduna moom tamit ñu koy jaal bu baax a baax di wax njabootu làmb ñoo ñàkk si semaine bi ñu génn nii yëpp Xeeru Ngor sa kàddu gu mujj tey ji looy tàggatu at fii nga ñu indi nii mooy fan waaw kàddu gu mujj gi dara dul santaat yàlla rek julliwaat sangu sangu yi gërëmaat suñu ñaari waajur di wax jërëjëfe Baay Ñas ñu ngi koy santa lim ñu defal amuñu fayam mais di wax ne rek fii ñii mooy kër Bas suma ndijaay la suma lépp la ñun fii suñu màkkaan la ñun fii lañuy ñuy yendu waaw fii lañuy toog mu ñuy defal lu ne duñu bernde suñu yewoo rek fi lañuy ñëw toog bu ñu demee enterrement ñëw fi la ñuy toog bu ñu heure liggéey jotee ñu dem liggéey bu ñu wàccee fi lañuy ñuy toog suñu garant su lépp la dañuy am ay combat mu ciy jàpp xama moom daal gàlle baay nii gàlle baay faal la yaama moom moo géré fii quoi mu suma jigéen la sama xarit la sama lépp la mais daf ma sonal mooy loolu ko magu deux Ziga la moo tax max moom duñ juboo ah, magu deux Ziga la mais moom dinaa ko dóor ay coups bàyyi ko <laughs> mais xam nga rek di gërëmaat sama gars yëpp criminels yi les premiers cadavres di leen wax ne awma seen fay ñooñu parce que dañuy sonn ci man di yàgg sonn ci man ba tey ñu di gërëm képp ku may jàppale maire Ngor Amadou Gueye Aty maa ngi koy gërëm di gërëm suma nijaay Karim Ndiaye xama sama nijaay Baye Boris xam nga Tra borom Noflaay Beach maa ngi koy gërëm di gërëm xam sama nijaay fi may liggéeyee muy Sahir Kebe suma patron sax suma lépp maa ngi koy gërëm xam di wax ne mu may jàppale bu baax a mais di jox mention spéciale kenn muy docteur Niang borom suma assistance kooku sama sponsor la te dafa pare pour jàppale ma sama giiru carrière bi des yëpp parce que dafay jël xaalisam di ko def si man nii nii nii ma amul combat nii daf may woo ma ñëw may ma xaalis su ma amee combat day jël xaalis bu baree bari def ko teg ko si table bi ne ma loo bëgg def ko jox ma oto ñaari oto la may jox ne ma boo bëgg jëlal nga dem kon kooku daf may jàppale te yàlla tax xam nga maa ngi koy ñaanal moom moo xam li mu bëgg yal na ko yàlla may lu kawe njortam borom suma waaw maa ngi koy sant bu baax a baax di sant sama gaa yëpp sama booy yi ay maam sam bàcca Jibi Diop Xaadim Ndiaye xam nga Juma Moustapha Kas gaa yëpp daal maa leen di bëggee di leen wax ne. xam nga ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi fi ñu ko téye foofu la bu ñu dara tàqale yee kontaan naa si ñoom bu baax a baax di leen gërëm yéen tamit si ñëw bi ngeen ñëw fii parce que yombul ko xam nga juge fi ngeen juge dagg xam nga eh, xaw naa ko mere si ñaareel bi sax mais dama kay ñaanal rek mooy loolu quoi yow it nga jéem a fas jom takk xam nga mooy loolu ko waa ma mën a takk ma nit yaa ma gën a xam xeeru sax mu leen ñu waxtaan fair yi ñu doon yaa ngi ci boolu si bokkut. di jéem a may booy bi succès. non mais non violence la dama lay jox ay consigne rek xam nga boo jëmee. doo jox sa bopp doo koy man am man gel baaxaw ma. man bientôt ma ma am incha allah ñaanal leen ma rek bientôt bu <laughs> ma amaatee benn benn combat rek incha allah. <laughs> seen émission seeti bër tey jii ñëw na Ngor fekk si benn xale ndaanaan di ku ya lambu yaakaar. tey ji ñëw seet si ko muy xeele nga ngi fi mu déparé ba fi mu egsi tey seen émission seeti mbër mu dalal ñu fi nag ci biir kër gi nga gis boutique bu yaanj bii nii mu dalal ñu fi fekk ci benn soxna su baax di ko ñaanal fee ak tey si ndax euh, li ñuy wax sax du rek moom yaay booy bi gën si yaay booy la kon dañ koy ñaanal lu kawe njortam rek waaw ndax place bi bu baax la ndax ñëw nañ mu taalal ñu kilim xam rek dañ naan teraanga tuuti mu taalal ñu kilim waaw di nuyu nag borom ñaari galon yi su ma nee borom ñaari galon yi moom bàyyiwuma kenn borom ñaari galon yi moom nuyu naa ñëpp waaw ku lu ñaari galon rek nuyu naa la waaw di ziaraat ñëpp <laughs> di joxaat ñëpp seen wàccuwaay di wax uh, waa Kër Baye électronique di leen ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay bu di bëgg Papino Sok Papino Sok ay xale lañ ñu gëm seen bopp ñu ngi nekk benn baraak tali bu xonk boo jàddee mel ni ku jëm àll bàyyi ñaax Papino Sok di leen nuyu bu baax di leen ziar ay xale lañ ñu gëm seen bopp waa Papino Sock dina wax gars yi di leen bàyyi xel Papino Sock de ay xale lañ jàppale leen bu baax a baax a baax dig daje beneen émission ak beneen champion fii si SBT Média mu ànd ak suma alaaji bu demul màkka bi muy alaaji Maas di ko ziaraat bu baax a baax a baax di ko jox wàcc waayam bu wér a wér forever doxal ñu dem